5 février 2024 ñi nga xam ñooy électeurs ñu góor ñu jigéen ñi fii ci seenum réew ñoom daañu tànn ka nga xam kat mooy nekk seen njiitum réew ëllëg loolee ci juróomi at loolee kat rendez-vous bu am solo ci askan yi nga xamee moom ci boppam moom rek kay tànn kon dina déterminer ci li nga xam daay mooy ëllëg ci wàllum politique ak ci wàllum koom waaye mu nekk moment bu nga xam ne lu am solo ci taarixu Sénégal la élection 2024 bi nag moom tax na daal ba ki nga xamee kat moo war a daal yor ca gëlugu yam loolee waruñ ko mën a xam waaye dëkk bi nag moom naam sax am na élection yoo xam ne kat moo ko waaye ndax loolee kat dafay daal di gën a métti rek ndax loolee day tax rek ñu daal di xam ne Sénégal yàgg naa organiser élection loolee laaj bu samp la ndax la nga xam mooy firnde gi ci ñaar fukki fan ak juróom ci warum février ci 2024 dina am cachet boo nga xam ne kat bu am solo la ginnaaw ñaar alternance ci 2000 ak 2012 Sénégal mi ngi daal di wéyal ci dynamique bi nga xam ne daal moo ay alternance waaye tamit di toftalu ndax kat dana amuk wuute loolu tamit laaj la ndax tamit dana ubbeeku wala déet kon candidat bi nga xam ne daal mooy candidat majorité bi di premier ministre Amadou Ba moom nag dina jàmmaloo ñi nga xam ne ay leader ay parti wala coalition yoo xam ne ñoom daañu am expérience lool waaye enjeu bi ci continuité bi ci nga xam ne daal day wéyal li nga xam ne alternance bi day tax rek mu daal nekk ab renouvellement bu am solo boo xam ne day xóot lool ci wàllum politique ci wàllum alam bi ak li nga xam mooy socio économique waaye Sénégal dina nekk nga xam mooy dëkk bi am pétrole ak waaye tamit war na mën a daal di jokk sax ci dëkk yi nga xam ne ñooy dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ko exploité waaye tamit laaj beneen bi sampwaat mooy électeurs yi ndax ñoom daanu tànn njiitu réew mu nga xam ne daal kooket ab xale la kookee dina am doole lool yaakaar ni kat moom dana toll génération ñi nga xam ne ñoo ko fal loolu tamit mooy nekk illa ndax critères yi nga xam ne ca la ñuy doomu aadama tax nañu bëree bëri di koy ŋawti ŋawtee kon ak lu mënte xew mooy ndaw ñi war nañ mën a bàyyi xel di góor ji jigéen am ñoo xam ne tamit ay màggat lañu waaye li xew daal mooy mooy nouvelle génération bi nag moom ñoom la nga xam daal moom la ñu bëgg mooy liberté ak tamit soppeeku ci lu wérte lu wóor ak li nga xam ne mooy moomeelu askan mi dem ci askan wi électeurs yi moom la ñu daal tànn rawatina raw ñi loolu la ñu daal di sàkku ak tamit li nga xam mooy màggaayu ñi nga xam ñooy candidat yi ci parti coalition bi loolee dana nekk facteur bu am solo ak lu mënti xew daal fexe ba daal di gàddu li nga xam ne mooy nono lii ak li nga xam ne mooy nekk benn ci Sénégal dana gën a duufal wàlluma démocratie